sàmm taxawu ko mhm. yoon tamit li mu a def jëmale ko ci góor gi mhm. na ko yoon def bu mu mat sëkk loolu daal la mhm. amoon lu ma ciy wax bu ci amee li ci dëng ñu ngi tuub di jégalu bu baax voilà di remercier également pour l'instant yi nga xamante ñoom ñoo scotché wu ci li nga xamante moom moo di émission bi Aline Salzar Mame Fatou Gueye euh, nee na Focus Jami Diallo Alsane Sané euh, Amath Thiam Euh, euh, Matar Fall euh, Pape Salla Aliou Ndiaye Pape Ndaw Assane Badji Amath Thiam yéen ñëpp ñu ngi rafetlu bu baax a baax ni ànd ngeen ànd ak programme yu Sénégal 7 TV di leen fàttaliwaat ne leen ci kanam tuuti di ngeen a am li nga xamante ni moom moo di sortie bu son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur Sénégal 7 TV beneen dossier de justice Alsane maa ngi ñëwaat ci yow. Pape Amadou mu ñeel euh, li nga xamante ni moom moo di euh, Ahmed Ndoye euh, di chroniqueur moom nag nee nañu dañ ko jàpp muy dawal te amul permis de conduire ba noppi itamit ginnaaw ba mu amee ab xale bu mu heurté ba ñu koy toppee itamit faux et usage de faux. waaw xam nga par rapport à ce dossier là Penda je crois que de Sénégalais doivent se ressaisir pourquoi je dis que les Sénégalais doivent se ressaisir xam nga. les sénégalais ont tendance à chaque fois qu'il y a un dossier rek ñu jéem a xool sa dimension politique. parfois nag du ñàkk ay dossiers yoo xamante tey jii day am déroulant politique du ñàkk politique yi dugal ci seen loxo. Mm-hmm. mais en de pareille occurrence je peux dire sans risque de me tromper. Mm-hmm. dossier bi nga xamante ne moom mooy le dossier Ameth Ndoye amul benn teinture politique. Mm-hmm. amul benn connotation politique. puisque d'après les yi nga xamante tey jii relaté a l'habitude mooy doon na dawal oto. Mhm. sans pour autant mu am li nga xam ne moom mooy permis de conduire. Mhm. xam nga tey jii nii Ameth Ndoye peut-être mhm. c'est chroniqueur boo xamante ne nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy seetaan mais boo nekkee sur la route ngay dawal sa oto en droit tu es considéré comme un usager de la route un usager. donc yow ak man ak citoyen bi nekk di dawal otoom vous êtes rangé dans la dans dans la même enseigne vous êtes rangé dans le même sac donc bu fekkente ne tey jii moom dawal na. on naa constaté que moom les euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy jouer rôle police administrative mooy policier ak gendarme yi nga xam ne ñoom ñooy taxaw ci tali bi li nga xam ne moom mooy seen rôle mooy constater ñu nekk dans une situation régulière yor nga permis yor nga carte grise am nga assurance donc ñooñu bu fekkente ne par exemple immobili immobilisé nañ la. Mm-hmm. et après cette immobilisation constaté nañ ne. Mm-hmm. yaa ngi dawal sans pour autant nga am li nga xam ne moom mooy permis de li nga xam ne ni tey ji moom mooy la conséquence de droit mooy ñu appliquer strictement les dispositions en la matière et en la matière li nga xam ne moom mooy dispositions yi mooy véritablement l' application des dispositions yi nga xam ne code de la route moom la prévoir te pour walla pour walla dangerosité yi dawal sans permis article premier du code de la route moom moo ko prévoir wax ne nit ki tey jii bu fekkente ne dangay dawal sans pour autant que tey nga am permis yoon day dal sa kaw. Mm-hmm. condamnation bi mën na nekk de six mois à deux ans. amende amende pécuniaire bi mooy aman bi finan financière bi mën na nekk vingt mille francs jusqu'à cinq cent mille donc loolu nekkul lenn loo xamante ni dafa am tey jii une connotation politique à partir du moment où tey jii jàpp nañ ko ci loolu. et on a constaté aussi d'après les informations en tout cas qui nous sont parvenues que information yi nekk ci carte grise bi ak information yi nekk ci permis bi. dafa am tey ji ay ay ay différence il y a une dichotomie moo tax au-delà du fait qu'on a retenu l'infraction de conduite sans permis ñu retenir daale l'infraction de faux et usage de de faux parce que le faux en droit dañ koy définir comme une altération de la vérité. kon certainement loolu mooy justifié li ñu dégg Cheikh Yérim naan euh, Ameth Ndoye nekkul ci li nga xamante ni permis dañ ko retiré ci fichier bi ca service des mines. oui xam nga en tout cas y a d'information yoo xamante ne ñu ngi koy distiller à tout bout de mais ndax loolu mën na nekk cest à ndax permis nit mënees nañ ko retirer ca fichier ba ca service des mines. non non à partir du moment nga am sa permis service de mines bu nu fa demee bu ñu dugalee tey jii numéro oto bi numéro numéro plaque bi da lay génnee ne kii mooy diw mooy Penda Badji mooy dawal oto tel tel tel parce que toutes les informations service de mines dañ koy am ça veut dire boo amul permis bu ñu demee service des mines fichier bi déjà du la ba ñuy xam yow ban oto nga yor donc je crois que à partir du moment loolu am na li nga xam ne tey jii sénégalais moom la moom la moom moom moom la ñuy xaar mooy. comme ni ñuy appliquer la justice pénale à l'encontre des personnes yi nga xamante ne chaque jour ñu ngi leen di juger ci tribunaux yi pour défaut de permis de conduire ñu appliquer noonu la même en tout cas réglementation ci ki nga xam ne moom mooy Amine parce que mooy li ma la wax xam nga Sénégal. Mhm. que ça soit les politiciens que ça soit ñi nga xamante ne tey ji am nañ benn notoriété bi toujours dañuy user de leur notoriété di ci abuser jàppee ñoom ay citoyens à part entière alors qu'en réalité à partir du moment où tey ji loi dañ ko teg la loi elle s'applique erga omnes on a l'habitude de, de, de dire en droit que à partir du moment où loi entré na en vigueur dans l'ordonnancement juridique interne xàmmeewul Diomaye xàmmeewul le président de la République Bassirou Diomaye Ameth bi nga xamante ne c'est simple citoyen mm-hmm. bu fekkente ne par exemple la justice doit sévir la justice day sévir mm-hmm. donc de ce point de vue là bu nit ñi jàppe ne mm-hmm. yow da nekk benn politicien wala nga nekk benn chroniqueur wala nga nekk benn personne publique tu te soustraire à la euh, c'est li nga xam ne moom mooy la rigueur la justice pénale donc de ce point de vue là par rapport à ce dossier là récemment on a constaté que Sidi Diop en tant ñu juger que. Mhm. ñu condamner que. Mhm. mu dem mu purger pénam de la mhm. de, de de la manière la responsable et de la manière la plus digne. donc pourquoi maintenant la le, le dans la situation de Amindoy Amindoy il est qui. simple chroniqueur buy nekk ci télé yi di wax donc kooku amul benn amul amul benn benn maraanu kir amul benn immunité amul benn privilège boo xamante ne nii war na ko mën a jox opportunité wala dayooy mu soustraire à à la justice pénale ba tax ay nit par exemple di jug di ko léegi léegi la mooy expliquer le fait est dañ ko arrêté juste après conférence de presse bi yóbbu ko ca brigade de recherche bu fédère pour ensuite yóbbu commissariat de à partir du moment où fay yi la amee woon loolu moo tax ñu transféré ko yóbbu ko Sébikotane. kon pourquoi waa Sébikotane ñoom ñëwuñu koy këyir ko. ñoom non non non non mais non pour dinaa la expliquer le pourquoi pourquoi nga ne ñan jël si ko waa waa. brigade bu brigade bu fédéral. waaw parce que brigade bu fédéral dañoo am une compétence nationale xam nga dafa am ay ay ay ay ay ay euh, de police judiciaire yoo xamante ne dañoo am une compétence sur tous les territoires sénégalais dëkk DIC am na compétence ci sur tout le territoire sénégalais section de recherche am na compétence sur tout le territoire sénégalais cybercriminalité donc c'est des unités yoo xamante ne am nañ compétence sur tout le territoire sénégalais fépp foo xamante ne def na fa xeetu ñaawteef mën nanoo dem ñu jàppale léegi bu la jàppee ba pare mën na laa yóbbu nag police wala brigade de gendarmerie bi nga xam ne moom moo territorialement compétente à la matière. <laughs> je sais pas si c'est vrai ou pas mais endroit bi ñu ko fekk y avait un rassemblement peut-être loolu moo koy mais bu doon par exemple pour dem cueillir que de de personnellement yaakaar naa ne ça nécessite pas que l'arrestation soit musculée mais peut-être que danoo danoo euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy les officiers de police judiciaire danoo jàpp ne comme que dafa nekk présentement ci rassemblement bu ñuy dem nañ fa dem ci avec des moyens yoo xam ne danañu mën a permettre ñu jël ko yóbbu ko sans tambour ni trompette léegi est-ce que plainte boobu ñu annoncé contre la police nationale mun na aggraver tey jii la chose. cette plainte annoncée n'aura pas n'aura pas d'objet. plainte du aboutir. déjà pour nga porter plainte li nga xam ne tey jii moom mooy la police nationale sax. ils ne sont pas justiciables devant les juridictions de droit commun déjà la police nationale n'est pas justiciable devant les juridictions de droit commun du da tëb tëb rek dem saisir le procureur de la république porter leen plainte dafa am ñoo xamante ne danoo am privilège de juridiction tey ji les officiers de police judiciaire boo leen bëggee poursuivre il faut obligatoirement nga jaar par la chambre d'accusation chambre d'accusation nga mën mais poursuivre leen aussi pour lan parce que ñoom dañoo def seen liggéey je crois que cette plainte yi nga xamante ne maa ngi dégg démb Cheikh Yérim Seck di ko wax c'est une plainte sans objet et qui n'aboutira pas à une léegi lan moo ko ci mën a fekk moo amee ndoy comme jamono jëlee ñi ngi ko placé en garde à vue donc présentement ni bu délai de la garde à vue bi jeexee inéluctablement il s'achemine vers le mandat de dépôt et après le mandat de dépôt la République ñu saisir li nga xam ne moom mooy le tribunal de flagrant délit ñu juger ko rapidement bu fekkente ne par exemple les faits sont d'une certaine gravité et requièrent l'ouverture d'une information judiciaire ñu placer ko sous mandat de dépôt saisir benn juge d'instruction confier ko dossier bi mais à la matière je crois que euh, faits yi war a mën a nécessiter ñu saisir un juge d'instruction te gëm naa ne dinañ ko juger plus rapidement devant le tribunal de flagrant délit mm. puisque ñaari infraction yi koy toppee donte am na benn gravité mais les faits sont constants et à partir du moment les faits sont constants war ta mën nécessité en tout cas ay saisir juge d'instruction dinañ ko àttee te buñ ko àttee bu fekkente ne yoon dafa war a dal ci kawam na dal ci kawam parce que Ameth Ndoye est citoyen comme tous les autres citoyens sénégalais amul benn immunité amul benn privilège bu ko war a mën a couvrir mais compte tenu du fekk ni Sébikotane la dëkk ndax tey bu ko doon transféré mën na mën nañ cas parce que en général bu la jugé ba condamné la rëbës la lay yóbbu en général léegi nag bu l'administration pénitentiaire en fonction de ton statut mën na xool par exemple transférer la Sébikotane wala mu transférer la Cap Manuel loolu dépend de l'appréciation bi nga xamante ne tey jii moom mooy euh, l'administration pénitentiaire moom lay joxe par rapport à ce cas mais je crois que vouloir accorder une dimension politique à cette arrestation me semble être indigne parce que il est poursuivi pour des et li nga xam ne tey jii moom moo nga ko da nga da nga da nga perpétré benn accident donc boobu noonu bu ñu ko invoqué à mën na nekk lenn loo xam ne mën na gën a corser la situation de ce de de de Ameth bi nga xamante ne nii présentement ni il est placé en garde à kon finalement du lu ndaw. non nekkul lu ndaw parce que accident boobu noonu moom moo koy justifié te aussi c'est un risque pépenda di dawal sans permis de conduire. yoon ñenn rek la jox code de la route ñenn rek a dawal sans ñu am permis de conduire. Mhm. mooy ñi nga mhm. rek la jox ñu mën a dawal sans pour autant que ñu am permis bu ñu dawal sans ñu am permis de conduire. Mhm. day fekk ñu nekk sous l'encadrement et sous la surveillance des dirigeants yi nga xam ne ñoom ñoo ñooy auto école bi. Mhm. donc à partir du moment nit mi ngi conduire. war nga mën a def le tout ba nekk en ba nekk en règle avec la règle avec euh, euh la réglementation en la matière à parti du moment où Ameth Ndoye a transgressé li nga xamante ne ni moom mooy les règles du code de la route donc que la justice en tout cas fasse son travail mmh. de la manière la plus indépendante mmh. espoir en tout cas que justice dina def liggéeyam de la manière la plus indépendante parce que pratique yi ñu fi doon constaté récemment mhm. ay traitement yoo xamante ne tey nii mhm. dañ ko doon traité de manière inégalitaire mhm. yaakaar naa ne avec cette nouvelle euh, cette nouvelle justice le nouveau garde des Sceaux euh, donc Ousmane Diagne mooy j'ai bon espoir que am na yenn pratique yu bari yoo xamante ne ni ces pratique d'un autre âge dina dina dina dina dina dootul dootuñu ko constater dans la justice sénégalaise. alors Alassane pourquoi maintenant stratégie bi ngeen teg yéen way politique yi euh, parce que Pape Amadou mi ngi koy wax léegi dossier bu nekk rek souvent sax ñenn ñi dañuy commettre yenn infraction yi mais dañ koy bëgg politiquer évoquer comme démb la gis ñun ñëpp ci kaw Amendo ñu gis ko ci li nga xamante ni moom moo di ci conférence de presse bi euh, quand on parle de sortie nga xamante moom lay def euh, peut ni ça n'a rien de politique. intervention yi man li ma cay wax du bëri euh, comme j'ai toujours l'habitude de la dire <coughs> man politique bi ma gëm mooy politique boo xamante ne nit lépp looy def da nga koy teg ci dëgg gëwuma politique politicienne gëwuma aussi tamit jël dossier boo xamante ne c'est un dossier apolitique ñu bëgg ko politiser man loolu mosuma ko gëm ba ci man nii mosuma ko def donc defuma ko démb du tey laa koy def en tout cas li ma ci wax mooy damay masawu amendooy euh, nul n'est au-dessus de la loi. dëgg la Sénégal bu ñu bokk te mënuñu ko séddoo. Mhm. lenn rek mooy mën a tax ñu mën a am vivre ensemble boobu. Mhm. mooy li nga xamante ne yàlla daf ñoo yàlla da koo teg mu nekk ci yoon. te ñun ñëpp ñu war cee tënku nañ ci mhm. tënku. Ameth Ndoye dëwal na sans permis ci lu ma li ma gis nit ñi lu ma gis aussi tamit nit ñi publier ko wax ko. Mhm. j'ai écouté le juriste wax na ci. Mhm. nañu nañu bàyyi yoon def liggéeyam waaye ñu xam ne tamit sénégalais la te sénégalais yi soxla nañ ko ndax taxawaayam ci réew mi. loolu daal la amoon lu ma ci wax du ma ci xóotal man le question liées au droit du ma ci bëgg sori parce que du ma du ma juriste xaw ma ci lu bëri waaye xam naa ne Ameth ko bëgg Sénégal la erreur nag mënul ñàkk ci doomu aadama. erreur mënul ñàkk ci doomu aadama donc loolu tamit bu fekkee mën na nekk ñu sooraale ko ci ci ci dossier bi donc di ko masaw bu baax a baax di ñaan yàlla fi mu nekk yàlla na yàlla def mu gaaw faa jógee continuer di am taxawaay bi nga xamante ne amoon na ko ci Sénégal mooy lépp loo xamante ne moomeelu Sénégal ñu mën koo sàmm taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci di xool di saytu ñi nga xamante ne yàlla teg na leen ci nguur gi mu nekk taxawaay boo xamante ne Sénégal yëpp soxla nañ ko donc di ñaan rek nu mu gën a gaawee ñu ñu ñu def ci liñ ci war a def di di di ko nee rek moom tamit mu xam ne yoon yoon liggéeyam rek lay def waaw loi moom loi man bi may jàng loi li ma ci jàng bariwul mais xam naa ne moom la loi elle est impartiale donc nañu bàyyi yoon def liggéeyam di ko di ko di ko di ko jaajëfal bu baax a baax aussi tamit ci taxawaay bi nga xam am na ko te yàkkamti nañu mu ñëwaat si ñun continuer liggéeyam Sénégal set tamit di këram. Mm-hmm. donc ñun ñëpp ñu ngi koy masawu bu baax a baax euh, man bokk naa si ñu jàpp ni dafa juum mel noonu nag euh, juum doomu aadama moo koy def et que euh, ko jéggal rek man loolu laa am ci li nga xamante ni mënees naa ko ci wax te lool laa jàpp ni fi ma nekk nii tamit ci kër gi may liggéeyee ñoom également tamit boobu la gis-gis lañ ci am alors. Abba aussi Penda foofu ma am lu ma ciy dolli tuuti. dafa ko dama ko fàtte. man j'ai apprécié taxawaayu amendoo yi. la moo tax ma apprécier taxawaay bi mu am dem muy ji comme ni mu ko waxee woowul Waly woowul Jibi loolu day wane ne rek. gis nga semaine woote na conférence de <laughs> waaw mais def na conférence de presse. sama xarit bi daa doy waar waaw mais woowul Waly woote na woowul Waly yuuxuwul woowul Waly yuuxuwul Jibi pour man loolu tamit day am leneen lu muy wone mooy le Sénégal que nous partageons c'est un Sénégal de droit te comprendre na que ñun. amuñu lu gën constitution Sénégal parce que tey bu ñuy comme ni ñuy nee ab euh, Coran c'est un livre sacré Bible c'est un livre sacré sacré mm. bu ñu ko àndee ci droit la constitution sénégalaise sénégalaise lu gën a sacré constitution amul ci Sénégal donc wuyu ji na te damul pare oto <laughs> wowul nit ñi ñu dem manifester wu ji yaa ngi dégg kenn gaañuwu ci mm. quatre-vingt-quatre sénégalais ñàkkuñu ci seen bakkan donc Ameth Ndoye loolu vraiment c'est un c'est un acte très fort boo xamante ni ci li nga xamante ni ñoo ko bokk muy la constitution sénégalaise loolu maa ko siy jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm. alors ci wàllu politique. laay desandi ak yow euh, Alsane euh, Pape Amadou maa ngi ñëwaat ci yow euh, Alsane dañoo gis. ab nomination ab polémique mm-hmm. euh, mu ñëwee nomination ki nga xamante ni moom moo di Samba Ndiaye ñu def ko PCA wu SNHLM e mm-hmm. lu ni mel nag bu mu amee euh, gis nga euh, coow yi bari na gis nañ tamit ci ay live ñenn ci ay militants wu Pastef ñoom ñëpp fu mu ne ni mer ba futtu la ñu xëyee ay bi ñu gis ci ay communiqué ak yu ni mel ba sax ñenn ngi doon appelé tey jii au ci li nga xamante